Pape Sagna euh, Pape Sagna Mbaye alors ñoom ils ont un euh, goût de bilan mitigé voilà <coughs> mi figue mi raisin beaucoup de bonnes réalisations euh, mais difficulté dans la gouvernance de l'état de droit difficulté dans les réformes dans les réformes économiques une sortie de de de scène pas très explosive d'abord euh, damay saluer <coughs> je m'excuse damay saluer mooy d'abord la responsabilité que le président Macky Sall incarne parce que de son discours nous pouvons apprendre que c'est quelqu'un boo xam ne bii il a une très forte conscience du devoir de la terre dénk nañ la Sénégal 2012 ba tey laaj na bi ma taxawee fi ma wax li ma def man ci yaakaar gi Sénégal yi bokkoon ci loolu du ma ko lim ndaxte professeur nga xam ne moom mën nañ ni bokkul ci acteur politique yi xaw ma obédience am mm-hmm. mais boo xoolee kàddoom dafa nekk kàddu koo xam ne kii dafa am un œil extérieur moom ci boppam en tant que professeur reconnaître na réalisation yi am bi nga passé euh, loolu la ko député Abba Mbaye nee na au point de réalisation c'est sans conteste xam nga kon donc président Macky Sall ci bu ñu ko doon noté ci mbir li ñu ko dégg ak la mu ca def war nañ ko mën a jox lor boo xam ne nii c'est largement au-dessus de la moyenne. mais du matière du matière bi du du réalisation kese <laughs> matière yi bari na de ak coefficient très élevé. dama nekk ci suma alimentaire dama ni boobu jéem loo xam ni kenn contesté wu leneen li nga xam ne dañ ko dugal mooy mbiri démocratie amul benn citoyen buy dox ci mbedd bi ñu ñëw jàppale Thiel ak yóbbu amul président Macky Sall moomul justice bi président Macky Sall respecté na justice ba nga xam ne bii ak lu ñu ko mën a ñaan intervention lu jëm ci mbir justice def na ñooñu dañu am seen indépendance tey jii justice altine bu ne lii baax na. lii dafa jugé naa nii pour opposition opposition loolu laa xaar kon tey ñu ëpp ñoo gën justice Sénégal ëllëg si biir justice bi appliqué ko yoo xam ne lii arrangé opposition bi mu ne amuñu justice loolu moo fi danga da xool ci benn situation lii am na cour d'appel lii am na cour suprême et cetera ñaari position yi bokkul ci même élément kon bilan immatériel boobu bu ko bëggee wékk président Macky Sall problème am na bu fekkee nag réew. mais toll na foo xam ne fii la responsabilité du bilan immatériel kan la ñu koy. mais non quand je parle du bilan immatériel je parle de ce bilan de justice bi ñu xëcc ak cette démocratie bi ñu dafa reculer recul démocratie bu amoon tey jii président Macky du toog ni man ba may defu référendum la ma defoon ci référendum bi moo di ñaari mandat lay am. te yaa ko wax ci début émission bi président Macky Sall musul taxaw fenn ni man damay def troisième mandat bu fekkee nag ni peut-être une opposition était en perte de vitesse yeewu na ni bon ni ñu xëcc sa levier politique de troisième mandat teg ko yóbbu ko en bandoulière fekk na président Macky Sall li muy xalaat xalaat na ko li mu diggante ak Sénégalais yi wax na ko nee na sànq j'ai le Sénégal au cœur te it même bu ma génnee bàyyi Sénégal bàyyi bàyyi le pouvoir je reste disposé et disponible pour sama capital euh, relation internationale ma def ko au service de mon pays alors que xam nga kuy wutu engagement bu mel noonu ku ko jël mu nekk un engagement tellement fort du ma ko mën a sax jël ni moom patriote la parce que ce terme est galvaudé aujourd'hui mais ki nga xam ne bu xëyee am la conscience morale du bien commun fu mu dem gis loo xam ne ni baax na ci senegal même bu di bitim réew mu jéggaan ni ko indi ko kan moo sa xalaat terre bi mu ko ñëwee ni terre dafay am loolu nga ba député Bambey wax na ko nee na débat ba mu suscité woon kenn nangu ko woon kenn su ko sax xalaat am na ñu dem ba ne terre bi bu amee man bu ma sant sama santu baay pour ne citer personne tey ji moom Euh, Abba Mbaye nee na la euh, l'honorable député Abba Mbaye nee na la sénégalais yi ñoo ngi xaar ndax duñu yokk raam yi xam nga kooku sénégalais yi approprié nañ boobu projet BRT bii nga war a jógee Guédiawaye war a dem biir Dakar boo ko def ci vingt-huit minutes parfois dix-huit minutes démb premier mi ngi woon Pikine dans sa tournée économique waa Pikine ñoo ngi ñaan est-ce que du ñu tirer terminus Guédiawaye indi ko mu nekk ba au niveau de Thiaroye parce que njii terre bi moo fi aw beneen côté bi laaluñu ci terre bi donc BRT bi moom mooy eggali loolu ñu bëgg def jonction boobu à partir de Thiaroye nga xam nit bi mën a jël terre bi ak BRT bi en même donc yu mel noonu bu ko nit defee ci réew nga xam ni bëgg-bëggam ci réew mi <coughs> nattable nattable wuñu ko croissance nag dëgg la mën nañ ko discuter mais war nañ am conscience en tant que acteur politique et intellectuel léeg-léeg mu am des facteurs yoo xam ne exogènes dina am lu bari loo xam ni dina ko yàq au niveau des prévisions kooku wax fa dëgg neex yàlla dañ koy nangu léeg-léeg bu ñu nee Sénégal dina am taux de croissance 9 pour cent da nga xam ne dans un pays européen on passe à 2 ou à 3 pour cent et c'est le lieu de saluer l'ensemble des efforts et la cohérence des politiques publiques basées autour du Sénégal du plan Sénégal émergent et vous avez vu ci biir discours au point de au moins cinq fois le Sénégal émergent est revenu est revenu dans son discours et fi may daanelee ne pas monopoliser la parole émission